suñu ministre Mansour Elimane Kane ñu waxtaan ak sëriñ bi nga xam ni que dafa am euh, fii gàmmu événement bu mag ñu xam li ci ministère transport xam nga bu ñu waxee transport rek wax nañu lépp parce que ay nit dañuy jóge fu sori ñëw fii pour fekkee gàmmu bi donc il faut le transport s'il y a pas transport kenn du mën a ñëw sinon dañuy dox wala dara donc loolu tax ministère bi mu teg mu événement bi mu teg ko ci rëy moo taxoon mu envoyé ñu tey man secretariat secrétaire d'état au réseau ferroviaire national ak directeur yi fa nekk yëpp CETUD PTB ah directeur des transports terrestres ñoom ñëpp ak euh, euh, président conseil conseil d'administration bu PTB ñu ñëw fii pour wax sëriñ bi lan nañu namm ci ci ci ci ci ci ci gàmmu gi lan nañ dañ def pour améliorer quand même dem ak dikk bi entre Tivaouane ak euh, ville yi nga xam ni ñëpp dañ fa war a jóge pour ñëw fekk si gàmmu bi sécurité bi sécurité bi bon xam nga sëriñ bi ci boppam wax na ci lu bari sécurité routière li mu ci bëgg léegi am na benn campagne sécurité routière bu nga xam ni directeur bi nga xam ne moom moo yore directeur euh, transport terrestre dina ñëw fii le 7 day tijji fii benn campagne de sensibilisation à la sécurité routière sensibilisation boobu ñu ngi ci woo population bi yëpp ñu participer ci parce que vraiment dañu bëgg bii pas fii mu am moins événement bi mu am moins d'accident possible donc vraiment ñu sensibiliser def campagne de sensibilisation dakaar dem dikk mobiliser xam nga ay cars yu bees dañu président indil quinze bus ñu nar a def un transport important entre dakaar ak fii pour indi ñëpp dans la sécurité wàññi prix yi mu nekk un un transport am sécurité am confort am régularité am capacité aussi léegi aussi tim ñu indi fii xam nga Tivaouane amu fi woon réseau de transport ñi ñëpp bu ñu doon déplacé calèche wala kii moo leen di déplacé wala ay ay Jakarta léegi nag président Macky Sall comme dafa bëgg Tivaouane ak li mu fi def yëpp def fi 16 kilomètres de route def fi vie vie religieuse mu améliorer vraiment les condition de vie des populations ak li def fii yëpp ci centre d'accueil bi def ko ci wetu mosquée bi mu ni xaaral ma indi leen aussi benn transport bi nga xam ne nit ñi dinañ mën a jógee gare routière wala jóge ci yeneen quartiers yi di déplacer entre quartier et quartier ce sera le premier euh, service de transport interne au niveau de Tivaouane mu ne quinze bis moom ci boppam moo koy joxe bu fi ñëwee bu fi ñëwee vendredi fii lay jullee bu fi ñëwee vendredi ñu aménager comme dafay toog vendredi ba samedi ñu aménager mu daal di koy joxe mu daal di joxe quinze bus yooyu nga xam ne dañuy commencé daw parce que bus yi pare na def nañu études yi def nañu yëpp xam nañu lii ñi xam nañu yëpp léegi train bi moom après train bi moom dañ ci parce que train moo gën a wóor moo gën a sécuritaire moo ëpp jàmm moo tax ñu améliorer condition trans yi nekk ci biir train bi améliorer ko bu baax naa bay après directeur mu wax lam lim ci namm def yooyu yëpp ñaata voyage ci na def mais vraiment ñoom ñëpp le chemin de fer est mobilisé pour améliorer la mobilité pour wàññi accident yi pour wàññi yëpp boo ko defee mu nekk loo xam ne daal nit ñi dinañ mën a ñëw ak jàmm dem ak jàmm wàññi accident yi ba nga xam ni que vraiment ni ñi dinañ ñëw duñ ci am benn naqar daal di ñëw parce que dañuy ñëw wut si dañuy ñëw wut si wut si di fat di def di gàmmu moo tax ni ñi dañu mën a ñëw jàmm dem ak jàmm. jërëjëf merci. Tiwaawan ànd ak euh, monsieur le ministre secrétaire d'État Mansour euh, euh, Abdou Ndéné Sall ci ndigalu ministre Mansour Elimane Kane ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement ak ndigalu premier ministre ak monsieur le président de la république Macky Sall pour ñëw seet si sang bu tedd bi di Alhaji Abdou Aziz Sy Al Amin. di ko xamal ne ñun ci wàllu saxaar si nañ defoon ren ci Touba moom la ñuy def ci Tivaouane maanaam dañoo décider yokk nombre de train yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw Tivaouane fukki train danañ ñëw fukki train nag boo ko déggee xam nga ne benn train bu nekk mën nañ ñeent fukki camion mbaam ëpp loolu boo ko xaymaa rek ay junniy junniy nit la ci njëg yu xéwale yoo xam ne président de la république moom moo jël ay matuwaayam ne fu waaye waroon a fay junni fexe leen mu fay fa téeméer wala juróom fukk damaa bëgg ñëpp dem Tiwaawan gàmmu ji ci bisu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam matuwaay yëpp jël nañ ko kon nombre de train yi yokk nañ ko mais ren bu ngeen ko seetloo da ngeen di gis ne ajjuma mooy tëjug burdu gi ajjuma aussi mooy tëjug euh, xadaratul juma moo tax ñu may suñu mbokku taalibe yi ñoom ñëpp ñu mën a jël train bi mën a ñëw ndax train boo ko jëlee amul embouteillage amul xat-xatloo maanaam amul pàccaxoo amul toog ba ñàq wala toog ba sonn train boo ko jëlee moo ëpp sécurité train boo ko jëlee moo gën a fiable moo gën a wóor moo gën a wér te ñun politique bi ñu am mooy bi ñu instruire bi ñu président de la république instruire mooy départ heure ak si heure te loolu ñi ngi ci liggéey matuwaay yëpp kilifa yi jël nañ ko ba nga xam ne train yi fi mu toll nii buñ woon ñu départ suba sax pare nañ ndax président moom moo taxaw ne dama bëgg këru diine yëpp kontaan. mais dama bëgg aussi sénégalais yëpp fu ñu bëgg a dem ñu mën faa dem àgg fa ci anam yu gën a selle ma doon wax sànq ne bu ñu seetloo ci taarixu Sénégal raay dafa bokk ci suñu histoire raay suñu démb la bokk suñu tey la bokk mais aussi suñu ëllëg la bokk raay yi fi nekkoon tubaab yi ñoo ko fi defoon président tey mu ne gis na ne jàngat na gëstu na saytu na lëj mën na ba xam ne mënuñoo jëm kanam mukk lu dul dañoo mën a am suñu raay ak suñu saxaar yu bees décembre bi ci lii la ñu lancé di ñu wax TER weddi nag gis bokku ci président ci boppam en tant que premier soldat moom mooy ñëw taxaw pour lancer TER bi te mooy saxaar yu bees yu xarale yooyu yu gaaw yooyu yu yàññ yooyu yu am doole yooyu nga xam ne mën naa jël lu bëri li muy jël rek mat na cent quinze mille cent quinze mille mooy war ngeen ko xam ci olof du ma fi nekk di ko toj tey ñun suñu capacité douze mille la mais cent quinze mille c'est presque euh, dix fois plus ou vingt fois plus ci ay ay nit mën na koy jël di leen yóbbu ci ñëw ci ci vitesse bu gën a gaaw et ci sécurité bu wóor loolu la ñu lancé te buy du yàgg dara incha allah ñu ngi ci yeneen projet pour suqali raay bi dekkal ko mais indiwaat raay yu bees président dafa taxaw xeex ci am ñu mu wóolu jël leen te ñooñ ci lañ bokk te ñu ne ñu ngi ciy xaar suñu tànk tubéy ministre Mansour Elimane aussi vraiment di ci liggéey liggéey bu am solo pour que ñu mën a gaaw mën a développer génn ci ndóol. alors kon président moom mooy ki nga xam ne moom mooy njëkk a lancé raay yu bees yooyu di nit ku ñuul di doomu Sénégal wala lancé travaux yoo xam ne instruction yi mu joxe mooy balaa yàgg lépp pare raay yi mun a ñëw dem nañ ba commandé suñuy wagon suñuy lépp yu bees donc liggéey bi daal ñu ngi ci am na ay visit yu ñuy préparé pour gën ko mën a taxawal. waaw waaw xam nga ñun dañoo ne ren président dafa wax ne il faut que ñu changer mentalité. mentalité bi mooy il faut que ñun sénégalais yi ñu tàmm di départ heure di àgg heure ci kàttanu suñu borom maanaam mooy ñu jël suñu matuwaay yëpp waaye ne nit ñi midi ba pare départ ay 5 heures ak yooyu yooyu dañoo bëgg mu jeex fi alors train yi dana am fukki train yoo xam ne dana bàyyeekoo Ndakaaru am ci benn boo xam ne gin gi neew lay bàyyeekoo train bu njëkk bu gàmm gi desee ñaari fan lay départ ngin gi new mi ngi départ ci 10 heures. dana am train beneen boo xam ne mu ngi déparé dakaar 10 heures day jaar Thiès Tivaouane et cetera am na bi ñu ñëwee suba la màggal gi. suba la gàmm gi ngeen baal ma dana am beneen train boo xam ne dana jóge foofu dakaar 11 heures beneen bi jóge fa 16 bu nga xamee ne bisu gàmmu ci boppam ndax gàmmu ñëpp xam ne ñu guddi la am na train buy déparé 10 heures et demi gën gi neew am na buy jógee dakaar dix heures am na bu fa jógee douze heures am na bu fa jógee quatorze heures am na bu fa jógee quinze heures et demi kon loolu lépp boo ko xaymaa mat na fukki train bu ñu gàmmoo ba ca suba ga ci altine ga incha allahu rabbi dana am buy départ Tiwaawan di war a delloo waa waa waa ngeen ngi neew dix heures am na buy départ euh, Tiwaawan war a jëmaat nag dellu bu ak Dakar boobu dana am buy départ sept heures ci suba am na bi départ huit heures ci suba am na bi départ neuf heures am na bi départ onze heures am na bi départ quinze heures trente am na kuy départ dix sept heures trente te yooyu yëpp incha allah man personnellement maay taxaw veillé ci pour ñu départ heure donc wàllu train yi ak ci gàmmu gi lii lañ ci mën a xamal te nag train yi li ñu ci xamul mooy am na ci yoo xam ne ay train climatisé la ñu bëri ci màggal gi dañu ñu woon ñun xamuñu woon ne lii sax amati na Sénégal ci diggante bi ñu faleeg léegi nag jonj nañ leen bu baax fomp leen raxas leen bu baax préparé waat leen bañ ne cocc train yi war a daw yi am ay salon yi am ay climatiseur yi am ay restaurant te nag bu ñu mënee def loolu ci anam wu gaaw c'est parce que président moom moo taxaw daal ne gaaw leen defar mbir yi ngeen liggéey damaa bëgg ñu jëf gaaw ndax jëf rek mooy li wér donc daal jël nañ suñu matuwaay pour mën a indi jaam yi ci jàmm delloo leen ci jàmm te incha allah lépp dana xew ci jàmm ñu ngi leen sant leen.